asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 dañu koy tàmbalee ak transfert ki nga xam ne mooy Alvaro Morata ak demam ci AC Milan ne leer na moom moo ko waxal boppam gannaaw bi ñu ko laaju lu jëm ci loolu mu ne waaw dafay dem foofu la ci AC déggoo am na dina dal di dem def li nga xam ne mooy visite médicale loolu nag mooy li nga xam ne moom la daal di gaaral nee na daal fi mu ne mu ngi tàggoo ak ñi nga club ba mënatoo leen jox 100 pour cent voilà da a bàyyi dem feneen loolu mooy li nga xam ne jamono bi moom la dal xamle kon dina dem signé foofu la ci AC Milan mbir la moo xam ne léegi leer na ki nga xam ne nag mooy gardien Manchester City bi ñuy wax Ederson moom ñii di waa Al dañoo teg li nga xam ne mooy ab dossier ci suuf gannaaw bi ñu defee woon fan yile ab offre bu toll ci 30 millions d'euros Manchester City daal di koy rejeté mooy Ederson xëy na li nga xamante ne moom la Man City di laaj dafa xaw bari ak ñoom moo tax ñoom daal dinañuy bàyyi li nga xamante ne mooy mbir moomu beneen gardien brésilien la ñuy topp waaye kii di Ederson bàyyi nañu ay mbiram gannaaw bi ñu dégg maam delloowee seen fanweeri million yooyu la Bayern Munich nag ki nga xamante ne mooy seen directeur bi dal dinay xam ne ne li nga xam ne moo jëm ci mbirum kii di Alphonso Davies nag fi mu ne nii dara leeru ci ndax Alphonso Davies ci jëm boppam am na waxtaan boo xamante ne maanaam seq nañu ko waaye daal moom dégg maam ba léegi ni amagul déggoo boo xam ne am na ci diggante Davies ak waa Bayern kon li nga xam ne moom la ñu gën a séentu mooy mu dal di fa jógee moom li mu xam ne mooy bunt yi moom u ngi ubbeeku bunt ubbeeku na tëjootul loolu la xam ne kon xëy na bu ñu gisee dinañu ko daldi bay mu dem comme ñu waxi téye ko wala bor prolongation ndax na nañu kat fi ni ne nii amuñu déggoo li rek muy filé ki bëss yi di ñëw wala ki wër yi di ñëw anak lan moy xew mom loolu la xamlé waye waaye daal mbirum amul ci seen diggante té ben at képp nak mo dess ci contrat bi ma japp ne xëy na duñu yël risque wu téye ko fofu lé ba déwon muy dem té duñu ci am ben copar waye daal limu xamlé moy le amul kon loolu limi wané kon moy xëy na Alphonso dina fa joggé ndax ci Real Madrid lay dem wala ci Liverpool wala yeneen club yi ñu doon tuddu fofu la ci Angleterre xamni lu meuna nek la mom nak xam ngeen ne mu ngi won ca Copa America ba waaye lolu fi ni fetona bor kon xeyna du yag fi léegi bes yu new dinañu xam ana fan la mbiram di muju ki nga xamne nak moy tagat equipe bi di Newcastle United muy Eddie Howe mom nak dafa bokku ci ñi nga xam ne dañoo samp ndënd wala bok dañ leen soxla ngir ñu daldi wootu wuutu Gareth Southgate ci equipe nationale bu Angleterre waaye Newcastle ne na du ci dal lolu mom xalaatuñu ko ki nga xamne moy seen jitt li neena lepp lu mu laaj dinañu ko def ba tie ki nga xamantene moy Eddie Howe ndax japp na ne kat projet yi nga xamne sumbu nañu ko mom mo leen ci doy te mu ngi def liggéey bu am solo motax dal. Sénégal bàyyi ko muy dem ci équipe nationale bu Angleterre ñoom du leen gënal yooyu jamono ñi di waa moom yitte woon nañu ko ngir mu dal di ki nga xam ne mooy Gareth Southgate bi nga xam ne dal dinay bàyyi équipe boobu ni ki jile bu ñu woyee ba tey ci transfert ñu gis na Real Madrid gannaaw bi ñu ndar keppee transfertu ki nga xamante mooy Kylian Mbappé fi mu ne ni ñu ngi topp ki nga xam ne moom la wax voilà Alexandre Arnold nekk joueur Liverpool naka lañuy def ba dal di koy signé ñom wa Real Madrid nak gis nañu ne sen latéral bobu nga xamanteni moy Carvajal xëy na commencé na jëm fan wéri at ak ñaar dal dina koy laq wala ta gis nañu ne kat ka koy faral di wootu man nañu gis ne do défenseur de métier moy ki nga xam mom lañuy wax te maam Lucas Vazquez te ñom ñëpp bu ñu ay mak lañu waye Alexander Arnold bi la dey jamono bi ñong ci tankam bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi te moom nag benn at képp a ci contrat bi manam bo ci Liverpool bu da yokul contrat bi déwén day takki bagaasam dem fu ko neex Atletico Madrid mom ganna bi nga xamé ne ki di Alvaro Morata fay dem li ñu bëgg moy daal di indiqué de Julian Alvarez bii ñu doon fi doon wax bés yi lay ci nekkat ñi di waa Manchester dinañ toog ak moom séq ak moom taabal waxtaan lu jëm ci ëllëgam gannaaw bi mu leen xamale ne moom dafa bëgg a continuer di football maanaam temps de jeu doy la soxla ci équipe boobu lay te njortu ne loolu xëy na du yomb ndax xam ngeen ne Erling Haaland mu ngi fa léegi nag ñi di waa Atlético Madrid ak Diego Simeone seen yéene mooy daal koy signé indi foofu la ci Argentine la ñu dëkk kon moo tax xëy ne bu ñu ko bëggee war na mën a yomb ci ñoom en tout ñoom bëgg nañu ko indi gannaaw bi nga xam ne Alvaro Morata moom tàggoo na ngir wuutali foofu la ci AC Milan ki nga xam ne nag mooy Boulaye Dia l'international sénégalais moom nag tey ji dafa amal loolu ñuy tuddee quadruplé ñeent but la dal di dugal ci match boo xamante ni kat mu ngi ayu ci pré-saison yi ñoom waa Salernitana ñu ngi waajal seen bopp xam naa ku dégg xibaar dina ne waaw Boulaye Dia moom lan lay def foofu ba léegi xam nga nañu ne ñi di waa ak ñi di waa Salernitana woon nañ ci koppar waaye nag moom ba tey ji ñuy waxee ak yéen demul signé ji maanaam moom ci jëm boppam fi mu ne nii mooy problème bi xëy na daa bëggul dem ci équipe boobu nga xam ne mooy Lazio ci yooyu jamono ñu nga ñetti simili la ko dal dugal ci ñetti simili ci la def li nga xamante ne mooy ab moom kii di Boulaye Dia l'international sénégalais dama jàpp ne Salernitana bu fekkonte woon ne di dëgërante ak moom bopp wala mbaa ñuy jaayante doole xëy na tey yii du leen fekk ci série B waaye mën nañu des ci série A ndax depuis Boulaye Dia gëj a ci équipe bi ak seen coow loolu ci lañ commencé am problème ba mujjee wàcc waaye nag fi ne nii ñu gis ne ci série B ba lañ war a si joué niki ndax Boulaye Dia dana ci ànd ak ñoom jamono ci AS Roma képp léegi nag xañ na am na club yu koy topp waaye moom Napoli lay xaar ndax yéen a mooy jouer ak ki nga xamante mooy Conte bi nga xam ne liggéey na ak moom waaye nag dafa bëgg a dajewaat ak moom maanaam liggéeyaat ak moom encore yooyu jamono nag Napoli ñu ngi yéexee seen mbir li ko waral mooy njort nañu ne kii Victor Osimhen dina dal dem te loolu Antonio Conte sax xamle woon na ko nee woon bu sañoon dafay téye ki nga xamante koy wuutu ci équipe boobule coow li nga xam ne nag moo ne ci réseaux sociaux yi démb ba léegi taskatu xibaar yi ku ci ne di ci wax muy mbirum Aliou Cissé sélectionneur national bi nga xam ne voilà dañoo jàpp ne dinañu yokk contrat te loolu nag bu fekkente ne am na dina fi nekk ba atum dama xamul ndax nit ñi dinañ mën a muñ loolu déet ndax am na ci ñoo xamante ne bu ñu sañoon ba ñu jógee ca kan ba la koy dàq waaye nag ba tey ji mu fi ndax dafa ne xamante ne mooy Aliou na loolu mooy yéenam ñu yokk contrat bi beneen at ak ne loolu am na mooy dina fa nekk ba 2028 ndax contrat bii nga xam ne am na ko te jeexagul dana dem jàpp naa ne njumte bu rëy rëy la bu fekkente ne def nañu ko léegi ndax koo xam ne yaa ngi dëkkmal ay campagne xamoo ndax da ca demam déet ndax qualifié ci kan qualifié ci li nga xamante mooy mondial ak buñ ca qualifié xamuñu ndax ndax dañuy dem ñu door ñu premier tour ñu ñibbi si xamoo lan moo nekk ci sa kanam ngay xalaat yokk ay contrat loolu dama jàpp ne xëy na njumte bu rëy la boo xam ne bu ñu ko defee dugg ci erreur xalaat bi gën kay mooy comme dèjà mu ngi ci contrat boo xamante ni jeexagul nañu ko bàyyi mu door contrat boobu balaa muy jeex fekk ñu dem ci li nga xamante ne mooy kaan ba ba ñibbisi ñu xam ana yan tànk la ñu ñibbisee ndax dañoo teel a wala boog dañu indi trophée wala dinañu def campagne boo xam ne dana jaral sénégalais yi ñu dal di dégg maam yeesal seen kóolute ca moom bu fekkente ne loolu am na day xëy na bu ñu yokkee contrat lu bëri defee coow dina bari lool ndax kat gis naa ne ñu baree bari donte ne am na ñu koy gëm ba léegi waaye nag am na ci ñoo xam ne fi ne dañoo doyal ci moom sëkk sëkk voilà ñaari bés bu ñu soñoon dootu ko fi def ñu bëgg ko fi dégg maam ba atum loolu moom jàpp naa ne nekk na loo xam ne du xalaat voilà faw ñu dal xool ci yan anam la ñuy lii di contrat boobule balaa ñu ciy dugg maanaam rek jàpp ne kii Sénégalais la wala moo fi mos indi contrat boobu wala sax ndax dañu koy dàq am déet loolu moom jaaduwul benn yoon ngir ñu dal di koy amal ci jamono bi ba ba léegi nii mel nag ñu gis ne ñoom dañu doon yooxu wala di wéy ay wéy yoo xam ne dañu doon gaariwaale waa France ak seen nit ñu ñuul ñi nga xam ne ñoo ne ci seen équipe bi seeni passeport seen famille ak di wane ne ay doomu Afrique la ñoom ñëpp ay africain lañu woy ju mel noonu daal la doon woy léegi nag woy yooyu nag dal dina yëngal équipe bi nga xam ne mooy Chelsea football club ndax ki nga xamante mooy Enzo Fernandez bi nga xam ne ci ñoom la bokk dañoo xam ne ne quatre joueurs français yi nga xam ne ñu ngi ci équipe boobu di Chelsea football club nga xam ne dañ ko doon follow ci Instagram ñoom ñëpp dañoo dégg moom rocceku on follow ko maanaam bokkatuñ ci ñi nga xamante jamono bi ñu ngi koy topp ci li nga xamante a sakkan ci équipe ñuul bokk ñu laal li nga xamante mooy nit ku ñuul te ñoom nag ay français la itam teg ci moo tax ñoom dañoo jàpp ne maanaam mbir mi mbirum raciste la loolu nag ki nga xamante mooy Twitter di ñaawlu loolu nga xamante xew na ak di wane ne maanaam fi jamono toll ci atum bi la dey maanaam wàllum racisme ak yu ni mel waratuñ ko gis ci li nga xamante mooy football bi léegi nag loolu nekk loo daal mu ngi wane rek naqar bi bi nga xamante bi nga xamante moom la wax dégg Enzo Fernandez moom ci la bokk ndax xañ na mooy victime bi ci njëkk gannaaw bi nga xamante ay mbokkam folootuñ ko ci li nga xamante mooy dëkk te nekk nay dugg ci li nga xam ne mooy équipe boobu te saison bi demagul fenn maa ngi doon gars loolu mooy li fi gënoon fees way leen di topp Sen Sports now.